Euh, daal di banque li nga xamante ni moo di seeni loxo fas yéene ñoo liggéey ba yenn gaal yu bëri bëri bëri yu fa jotoon a teer daal di tekk seen buum ñi teeri jifir ñi teeri mbuur feneen fu nekk fenn fu waay mën a teer daal di fay euh, teeri laaj nañu yenn kat yi yan jafe-jafe la am ñu daal xeer yi nga xamante ni moo nekk ci diggante poor bi ak géej gi dafi indi ay jafe-jafe andil na leen fa ay blessures yu métti ñii seen tànk damm fa ñii amee fa ay sooxe boobaak léegi nag werante bu métti métti ba tojante ay bopp amoon fa ñenn ñi daal di mujjee ji hôpital ci loolu nag tàllal nañ suñu micro seefu yenukat yi wax na ci ay xalaatam wante ñii dañ ni dañuy yenu ñii ni du ñuy yenu ndax seen mbokk mi tëdd hôpital ñu bàyyi leen réaction euh, yenukat yi ak ñi nga xam ni ñoo di mareyeurs yi ak jëndkat yi ak acteurs yu mool yi ñu leen di wax ni woy leen di abonné chaîne bi chaîne d'actualité la Lamine Dieng laa tudd nëkk Joal. Lamine Dieng tey liggéey lan. man mool laa damay rëdd. bon Lamine Dieng tey lu waral grève bi. grève bi lu ko waral mooy erreur bu ndaw moo ci am rek parce que bon mool bi moom deful dara yanukat yanukat deful dara mool bi kon mool bi war na dem teer yanukat yi di grève contre moom parce que jotawul ak yanukat bi dara. xeer yi la ñu wax ne nañ ko fi jëlee xeer yi ñoom ñi ko fi jal ñoom ñoo war a ñu jël seeni oto comme niñ ko fi jale woon ñuy ajee ko ci kaw noonu xam nga lu ma la wax ndax fii domaine maritime la géej suuf suy dund kenn bu ko sëkk suuf buy dund gis nga nii nii bañ koy def at yële man nii foroo naa ci ak ñoom ragaluma ci dara nee naa leen géej kenn bu ko sëkk géej ken waru ko sëkk ndax day dund léegi ñoom ñu ngi sëkk géej gi ba pare yenukat bi dafa ñëw pour njabootam mool bi liggéey pour njabootam kon dañoo war a jël seen matuwaay ñoom ñiy liggéey wala ñu jëlee leen fi ñun waa dëkk bi dañoo war a mobiliser wu ñii kenn liggéeyu xon naa ko wax kenn liggéeyu ñoom ñan la ñoom waa bureau bureau. ndax ñoo ciy de keej. CRPH su ñu waxee nangam ñee ñu naqari dañoo war a taxaw ci seen besoin am nga lu ma la wax mais waruñoo téye transféré bara xool bi dem jël photo per yenukat bi liggéey pour suuf leen loolu du yoon. mais yenukat yi annoncé woon nañ ko. annoncé woon nañ ko depuis boobu dellu si na ñu annoncé ko dimanche dimanche boobu dellu si waat na démb kon ñoom yenukat yi bëgg nañoo liggéey mool yi xëy quatre heures di tëmb di mbaali bëgg nañoo liggéey ci kaw ñoo liggéeyu لكن أنا ما أنا قال بكر تبي ترى هذا تبي تقولن كنن كنن كنن كنن كنن تنجا نوري جل في يجي يجي خالص تنجا يجي السلام عليكم man la Amadou Sow maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen ziar te wax nag lii combat bi du combat bu kenn nit ndax du kenn nit moo ko moom mbaa ñëpp la ndax combat bu ñëpp la xëy na ñun ñoo taxaw fii tey di ko jooy mais am na ñoo xamante ne sax ñoom ñoo ñu ko gën a soxla kanaan ñun dañ si gën a fës rek mais muy borom saret li arrangé wul ko parce que da yor fasam di dugg ci biir ndox bi tànk fasam yi di dëgg xeer yi kon arrangé wul ko borom gaal yi xëy na ñun dañu laa gën a tipp rek wane suñu bopp mais ñun ak ku ci sa gaal daal si xeer na bënn gaal kon combat bi ñun ñëpp ñoo ko moom mais gis nga bu fekkee da ngaa jiite eh, ak njaboot dafa war am noo xamante ni tamit noonu nga war a doxalee mais njaboot gi tamit dafa war a am nu ñu taxawee tey Fallou mooy suñu njiit ñun ñoo ko jiital parce que mbooloo mi mu toll moom kese lañ si xool doyloo ko jiital kon bu problème amee tamit duñ suñ xel da kenn moom lay daj aussi tamit moom moo demoon moom moo ñëwaat rendre compte mais lii Fallou waaw ah, dafa métti dafa métti parce que bopp nga teg si poids boo xam ne day dem ci cinquante kilos. soixante cinq kilos loolu du caaxaan. en plus ngay teg foofu sa tànk foo xam ne xamoo li li ngay dëgg lan la. damu damu mën na ci nekk. te bëri na ñoo yenn code yoo xool fii te rare ngay gis ko koo si gisul tànkam xoosuwul c'est rare ba ko gis te loolu li ko war a yëpp mooy xeer te nit nag su fekkee dafa am ñoo xam ne dañoo nekk si lieu boo xam ne di fa liggéey am ñeneen ñu nekk seen ginnaaw te xamuñu li ngeen liggéey ci lieu bi lii la ñuy ko du yomb mooy mën a kaas mooy ñi liggéey ci lieu boobu instant bi nag ñun moo loolu moo ñu tax di jooy di wax ni mm-hmm. te am loo xam ne ah, ñun ñooy jox respect suñu bopp mm-hmm. parce que ji nga nit ki ci lu muy liggéey lu ne ci lañ ko mën a nawloo mm-hmm. mais ci lañ ko mën a ñàkkaa joxe respect tamit ñun fii ñuy liggéey ci lañ yor suñu bopp ci lañ yor suñu famille ci lañ yor suñu njaboot kon mën nañ koo respecté ñun suñ ñu respecté woon ñu respecté ko ñu koy respecté mooy comme nii suñu taxawee di jooy benn affaire ñun ñëpp modifié wu wax ne li ñuy jooy kii di wax nii ñun ñoo lu mu wax lu leen loolu loolu wax te tey loolu leen wone man nag maa ngi félicité gars yëpp di leen wax ne taxawaay bi ñu taxawee buñ ci arrière parce que gis nga combat bi du combat bi kenn nit combat lan lan nga ni moo tax coow dem ba agsi tax ngeen wax yëpp affaire loraange la affaire gaañu la affaire blessure lan nga jàpp ne moo tax nag boobaa li ma saafara moo ko gën a waral parce que dañu dañoo joxoon ne ñun dañoo defoon waxtaan suñu bopp ñu ne neen joxe woon dale mercredi dina dañuy grève ah, waaw moom fekke woon réunion boobu mais dégg naa si ñenn ñi wax ne am na ku fan nekk président Paul moo tudd William hmm. moom moo waxoon ne yenn kat yi de li ñuy wax du dëgg si ñoom hmm. xëy na li ko fay jëndal du ñoom hmm. ñun buñ ko fi dindiwul mën na loo jooy jooytu boo xam ne mën na ko fi mm-hmm. te ki nga xamante ni moom mooy Fallou yaakaar naa wax jooju bu si jot tamit moom déggoon na ko parce que dégg naa am na ay rumeur yoo xam ne sax moom jot na si mm-hmm. mais li gën a naqar daal ba coow li am yëpp mm-hmm. daal bu fi génnee wasalaamun xëy bu fi génnul daal ñun ci loolu tax léegi nag li seen patron euh, ndax fas yéene ngeen ko jëfee tey non comme liggéey parce que moom am na suñu droit mais ñun tamit dañu am suñu droit. parce que moom gannaaw ba nu dafa am keneen koo xam ne daf ko soutiendre. mu ngi tudd Soyebu. bi am na koo ne bi ñu waxee ne bu kenn liggéey. yenukat la woon mais nekkatul yenukat parce que instant yi si wala yor di dugg bi dañoo wax ne bu kenn yenu ji moom mu manqué ndigal wala doy la wut suñu wax moom mu jël keesam dem di yenu ba gars yi xaw nañ koo dóor ñii ko ñii ne gaañuñu ko dafa am mu fekk fii mu toog kooku tey bu ñu waxee ne dañuy liggéey te moom mu ngi hôpital tëdd kon dafay mel ni ñun motivé wuñ def ñu benn su ko gaal la kon ñu mën a ñu mën a liggéey. Bambi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay président wu yanukat yi. waaw waa tey gis nañ ni tey euh, ngeen jékki-jékki dakkal seen liggéey ni du ngeen liggéey mun nañu expliquer lan moo waral. lu ko waral daal xeer yi. xeer yi ñu loon. avant tabaski boobu ba mhm. suñu ndaw ñu ngi ci gaañu. Mhm. ñii ci damu. Mhm. ñii ci xoos. seen tànga di yàggu mm-hmm. léeg-léeg kees moo lay tuuru mm-hmm. ñu daggal la saagandey mm-hmm. nga jotee ñoom ñu xool lool moom amul fu muy dem parce que xamul fu fan lay war a yem ñu dem ba fuñ ko war a jooy am ah, dem nañ fu nan nangu ñu di jàppale moo waral suñu grève tey ñu ne bu kenn liggéey ba ñuy trouver son mais comme dem nañ waxtaan nañ trouver nañ solution bu soobee yàlla. ak ndaw yi na na ñëpp dégg. léegi daal waxtaan nañ waa port bi. président waxtaan nañ moom. trouvé nañ solution. Eh, ngeen baal ñu xaq. ngeen dem delluwaat dem liggéey. waaw non balaa ñuy delluwaat foofu sax Fallou. waaw eh, ñun ñoo fi war a jëlee xeer yi parce que ñu bëri dañ ni yanukat yi ñoom ñoo ko war a jëlal. seen bopp ñii ni waa port bi ñoo ko war a jëlal. waa port ñoo ko war a jëlee. ñoo ko war a jëlee. foo foo demante aduna mu ne bar mosoo gis mooy eh, def loo xamante ne mm-hmm. eh, patron di ko liggéeyal mu ne bar di ko def mm-hmm. amul fenn mm-hmm. ñun ay mu ne bar lañu bu ñu amee lu ñu nakar dañuy dem fu ñu ko war a jooy fu ñu foofu la dem dem jooyante foofu bu ñu mën a eh, trouver solution ñu ñëw def ko waaw d' accord léegi yow nag euh, la fa jëlee mooy xaw naa indi ay polémique ñii nee nañ liggéey du am tey ñii nii euh, liggéey dina am yow en tant que kilifa nga jiite yenukat yi. lan ngay teg ci loxo yenukat yi. Euh, ba nga xam ne ñoo ma fal. Mhm. maa ngi seen ginnaaw. Mhm. li ñu bëgg fii rek mhm. ci laa nekk ci laay dox. Ah mais li ma leen ñaan daal comme ñoom ñoo ma jiitu. ñoom tamit dama leen ñaan. na de delloo ma ci loolu. ñu dem liggéey incha allah rabi hmm. yow jàpp nga ni xeer yi dina fi jóge incha allah rabi aja yaa xam ni tey euh, ñu ngi la fekk nga toog dafa mel ni liggéey amul lan nga ñu mën a wax ci lu xew tey waa Baye Djily ziar naa leen yaag si podium di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay ah di am euh, jaaxle rek ndax tey ñun bi ñuy bi ñuy gontu see ñu ñëw gis gaal yi teer gaal yëpp amateur benn gaal yebbiwul ñu am lu ñu jaaxal ma ne lan moo xew ñu ne ah tey kat gars yi dañoo grève mais grève bi li tax mu am mooy xeer yi nekk ci géej gi yenukat yi nee nañ leen dindil xeer yi ndax xeer yi dañuy yenu di daanu te wax nañ dëgg xeer yi dafa métti trop nañ leen jàppale ñu dindil leen xeer yi ndax lii jigul dëkk bi lii nii jigul dëkk bi gaal yaa ngi dugg ci gaal yaa ngi dugg mbuur jigéen ñaa ngi paas di nuyu ay oto ku si nekk yaa ngi jël sa liggéeyukaay di dem mbuur ñii da ngay dem ci fiir kon nañu dimbale li nga xamante ne day naatal dëkk bi ñu waxtaan si juboo ci moom moo gën lii. <laughs> ah yéen fi mu toll nii kon yéen da ngeen fas yéenee dem waa dañoo fas yéene dem Mbour ba ñu dem Jifir waaw. kon daal coow li li ko waral mooy eh, xeer yi nga xam ne ñoo nekk ci port. xeer yi waaw. Mhm. waaw ndax Baye Maama yëgle woon na xeer yi barka euh, barkaati démb. ne gars yi dañoo am réunion ba dem gars yi dem nañ réunion ba pare mais xeer li da dindi wuñ ko tey moo tax gars yi ñëw ne du ñu yeno enukat yi dañoo bañ. waaw waaw. président ñoo ngi lay nuyu. waa jii ñu ngi di fay. tey nag ñu ngi fi taxaw ak président des mareyeurs di Thione Ndiaye. Thione Ndiaye ñu jékki-jékki dégg ni port bi dañoo am grève ñuy ruumandaat ni grève na lan nga ñu mën a leeralal ci loolu waaw effectivement suñu mbokk yanukat yi ñoom ñoo amoon jafe-jafe ci ndox mi nga xëy ne buñ ci duggee dafa am ay xeer yoo nga xëy ne xam nga géej gi bi muy avancé dafa am benn benn fonds mondial de l'environnement boo nga xëy ne mu na commune bi mu am benn projet pour jàpp lañu ci avancement géej gi nga xëy ne doon na nangu dana menacé KDPES léegi nag xeer yooyu moom moo dem ba nat di géej gi avancé mm-hmm. léegi mu indil jafe-jafe yanukat yi ah ñu amoon man entendre la ak KDPES bi. ñoom yanukat yi ñu taxawal li geraw nañ. Hmm. mais bi ñu ñëwee woo te waxtaan ak président KDPES bi fekk na président William amoon na commission boo xam ne jëloon na ko. Hmm. jox ko bi ak président mool yi. Hmm. ñu am nekk ci wut fil boo nga xëy ni mën na dégager xel. kon affaire bi ñàkk a déggoo yaatal loolu yëpp ñu leeral ko fekk commission amoon na fi mm-hmm. ñu waxtaanaat yenukat yi bàyyi li ñuy bàyyi mm-hmm. commission bi ñu gën ko renforcer ñu fas yéene fii ak semaine bii di ñëw mm-hmm. xeer yooyu nga xam ne ni day indil jafe-jafe yenukat yi day indil jafe-jafe mool yi day indil jafe gaal yi ñu fexe ba commission boobu ñu fexe ko mën fii jëlee ci lu mu gën a gaaw kon kon fi mu toll nii mën nañ jàpp ni grève bi waaw mën nañ jàpp ni grève bi jeex na jiboo nañ ak président yenukat yi ak président mool yi ak président kerebes bi ñu jàpp d'accord na ci yanukat yi dellu liggéey yëpp nekk si jàmm ndax commune Joal-Fadiouth yoonu la mérito ndax TDPS bi dafay ressource yoo nga xay ne ni tey bu ñu xëyee takkal ko rek day danay li jax-jax ci commune te lépp nag nañu xam ni mareyeur muy moon bu loolu yëpp dëgg la mais nag commune Joal-Fadiouth tam dëgg la te kilifa yi tey doon lañ ko bisa ba am solution boo nga xay ne trouvé nañ ko ci li ñu